monsieur le ministre de l'agriculture mon ami mon frère maa ngi lay ziar di wax ne waxoon naa ko fii ci prix gerte gi Sénat producteurs yi opérateurs yi état du Sénégal prix gerte bi ñuy joxe arrangé wul béykat yi monsieur le ministre al état bi bàyyi subvention gerte gi ci subvention engrais bi béykat bi uti seen jiw ñu subventionné engrais bi mu yomb ci baadoole parce que da ngeen enrichir opérateurs yi ñu am ay milliards li ngeen war a jox béykat doo ko jënd te ñun li ñu jaaxal opérateur bu leen bëggee jaay jiw jaay leen kilo cent francs dem jox ko baadoola bi baadoola bi jël ko fi ne nii ngeen bëgg ko jënd ci moom encore lu mooy 300 francs normalement mënoo jaay benn kilo gerte am ci kilo ceeb monsieur le ministre ñun dañ nekk ay baykat président Macky Sall def lu bëri ci mbay mi man journée de en sama tool lañ ko aye woon président Macky jox ay batas d'arachide man boo xam ne 42 millions lay jar il paye cinquante tonnes par jour xam nga ñuy wax président Macky Sall buy wax autosuffisance alimentaire la mu njëkk a wax mooy bootuñu béy ay fas ak ay mbaam gars yi amuñu tool boo toogee fii na ngay téléphoné di laajte man dix tracteurs yi ma mujj am sama département yaa ma ko jox ak Pape Laye Seck suñ kër sëriñ yi nekk Saalum yëpp kër goo ci dem da nga fekk ñeent fukki nit wala juróom fukki nit nang ma ko joxee laa jël kër sëriñ si gouverneur taxaw ñu jox leen ay clé ñoom ñëpp ñu nekk di liggéey agriculture léegi njëriñ li mu am kenn mënu laa fu mu toll suuf si tey fi nekk nii li mu laaj mooy engrais monsieur le ministre il faut que état bàyyi gerte ngeen di subventionné gerte ngeen di subventionné opérateur yi ngeen di jox xaalis bi mais pas que béykat yi tey nag ñun dañuy bay ñun dañoo ne ci àll bi duñ ay baykat dimanche man du ma jël gros producteur dama ne un député wala un ministre wala un DG mënul nekk un gros producteur un gros producteur ci àll bi koy fay muy bay ay tonnes nga xam ñaata tonnes la mën a am di am bascule ngay jot tey fi ne nii tey Abdou moo ngi ne amul ay tool nga jox ko 50 tonnes hectare jox ko 200 tonnes gerte Abdou moom fan la ko jëmee mais nga jox ko Cheikh Seck wala Ami Ndiaye bi am ay tool moo gën loolu monsieur le ministre al xoolaat li xew te ngeen déglu góornóoyu président Macky Sall moo jël tracteur yu jar ay 37 millions mu koy subventionné bu ñu la joxee notification nga dem CNCA ñu jaay tracteur bi ci 10 millions nga ko pour 5 ans te commission yooyu DRDR moo koy def sous préfet ak préfet yi ñu jox notification nga dem seen saa ñu jëndal tracteur bi doo ci fay benn dërëm chaque année nga fay 2 millions. mais loolu tracteur yi di génne sunu gars dañuy laajte ay information te dañu ay baykat parce boo toogee fi am naa tool ñun ñëpp ay doom baykat lañ ko ay baadul lañ mais am na ñoo xam neewtuñ ci ay tool munoo nekk France boo ne ci ay tool. mënoon na nekk di wax xamuloo dara ci àll bi da ngeen ñuy laaj bay xam ñi nga xam ne subvention traité état bi da ci jaar ci ñun commission départementale yi régionale yi gouverneurs yi ñooy notifié pour nga mën a agricole